rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala sayyidil anbiyaai wa afdalil mursaliin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaiin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu bokki jullit yi ginnaaw bu nu santee yàlla sunu borom julli ci sayyiduna muhammad aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bi di leen ci ziyaara te jii di bisub ajjuma di juróom-benn fan ci weeru gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom mbokk yi xam ngeen ne sunu boroom dafa lëkkale mbirum euh, ku baax ki muy xaadimul rasuul da ko lëkkale ak mbirum comme doon liggéeyal muy seyduna muhammad alayhi salaatu wasalaam bërki démboo njaay lañu bàyyeekoo ci bisub sant fan yi di ñëw tam ñu dëgmal bisub sant ndaxte màggal dañ ci santale ku baax ki dañ koy santale sunu borom waaye gàmmu dañ ciy sant sunu borom ngir sàkk gi mu sàkk ngën ji mbindéef yabal ko ci nun te bu ko yebalutoon ci noonu dara du nu jar muy bés boo xam ne nag bi ci sëriñ bi nekkee da ko daan fuglu di ko bàyyi xel di ko waajal di ko yàkkawliku di ci bég tëju gi mu daan tëju sax su weer wi teroo dootu dootu tëju tey ubbi ay buntam di teral gan ñi di leel nit ñi amul dara lu ko nit di wax mu ne demal ba beneen weneen weer mën naa wax demal ba ëllëg waaye wax nañu ne weeru gàmm ak weeru koor lu ko nit wax da koy faj ca saasa xam ngeen ne sëriñ Saalihu yàlla na sunu borom gën ko dolli ay xéewal su daan woote màggal rek da ci daan boole woote gàmm di ci ñaax nit ñi di ci soññee di wax ne bisub gàmmu day ku ku ko yemale ak bis ba ko jiitu ak bis ba ca topp boobu xamoo li ngay def kon nag bis boobu la ñu dëgmal ci la yàlla wàcc alquran ci ci la yàlla yabal ngën ci la yàlla feeñal ngën ji mbindéef wàcc ci moom alquran ak feeñam ak yónni gi ñu ko yónni nag wàcc ci moom alquran loola ngëneel la loo xam ne di yërmaande joo xam ne mat naa fàttaliku di ca bég moo tax yàlla wax ne qul bi fadlillaahi wa bi rahmatihi fa bi dalika fal yafraxu huwa xayrum mimma yajmaun te buñ koy fàttaliku dara du ko lal lu dul bëgg sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ne nee na bala bala seen balaa seen a gëm mat seenu gëm yàlla balaa mat dama leen di gënal seeni waajur ak seen njaboot gënal leen ñëpp feeg demu leen ba àgg foofa rek seen nga matagul laa yuminu ahadukum xataa akuna ahaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wa naasi ajmain mbokki jullit yi lislaam ba mu ñëwagul àdduna sépp dafa nekkoon ci lëndëm ñi am doole di noggutu ñi néew doole danga gis ku ñu faat ba kanam te deful dara euh, nit ñi di xare gu ba bëccëg di xare xare yoo xam ne lu ñàkk solo moo koy waral ñi naan ñollu amul àpp ñi kart amul àpp ñi euh, yàlla di wërsëgal doom ju jigéen ñu fab liir ba gas suul amul àpp mag daawul yërëm ndaw ndaw daawul weg mag ki woomal daawul faale ki ñàkk daawu ko jàppale nit buy takk soxna du ko yemale fenn téeméeri soxna juróom moom daal nu dooleem toll rek noonu lay takke soxna buy fasee tam du ko yemale fenn dem nañu ba sax nit di amu fit ba su way juróom génnee àdduna mu seet ci soxna yi way juróom ka ko soob mu ne maa koy féetewoo yàlla wax na ko ci alquran ne wala tankixu ma nakaxa abaakum min min annisaai illa ma qad salaf kon ndeke booba doom aadama yi àggoon nañ ci sànku ak réer ak tooñ yàlla foo xam ne lii rekk moo mën a am muy yàlla yónni sayyiduna muhammad alayhi salaatu salaam ngir mu li leen moo tax bi mu ñëwee coono yi nit ñi nekk woon sikki sikki sàkk yi ñu nekk woon taq-taq yi ñu nekk woon bi mu ñëwee loola dafa jeex nit ñi am jàmm nit ñi békk nit ñi mucc moo waral mu ne laylatu mawlidin nabi laylatu maxwi réya bi laylatu maxwi taabi wa tuhrida taasumi biha alnajaatu walfalaax ma alsururi wannajaax biha alrabaax wasalaax ma indifaaci niqami kon yonent bi yërmaande jaam ñi la moo tax lépp lu dal jaam ñi ci ab safaan da koy metti da koy naqari ku sopp jaam ñi la ku leen yërëm la laqad jaakum rasulum min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun aleykum bil muminin bil muminina kon ku yërëm jaam ñi la te looloo tax yàlla wàcce ko ne ko ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin euh, ci bis bii nag la ñépp di fàttaliku ki nga xam ne moo ci feeñ muy sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam fàttali ko taxawaayam fàttali ko jihaad ja doon jihaad fàttali ko euh, xettali gi mu xettali nit ñi ak woo gi mu leen doon woo di leen yóbbu ca yàlla di fàttali ay jikkoom nit ñi nag ku leen gën ñu ne la yaanu gën wolof nee na ku la sut nga ne ko njool mi ndax yonent bi lim gën a ñëpp mooy ay waxam moo gën waxi ñëpp ay jëfam moo gën jëfi ñëpp moo tax ñëpp na ko yaanu gën moom la ku baax ki naan muhammadun alayhi afdalu salaam muqaddamun bi xayri fi'lin wa kalaam te nit ñi baax ñëpp eh, nangu nañu seere nañu ne moom moo gën ñëpp wolof yi dañu wax naan nit su nit bu ne nee baax na dañ naan ndax bokk yaa ko wax waaye nit su baaxee su ko ñi baax waxee dañ koy nangu shahida kullu sayidin yuxtaaru bi ann ahmada huwa almuxtaaru moo tax bayit wa ko sëriñ bi wax doy na sëkk aw tagg te wenn bayit la mu ne ko labista wal almajdi walfadli walula wa fiika min alaxlaaqi ma ajaza alkulla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 sunu أكبر لا إله إلا kon bayit wi nga xam ne moom la ko ku baax ki wax ne ko yaa toll noo xam ne yow rek yaa ni toll yaa mel noo xam ne yow rek yaa ni mel yaa yëkkatiku yëkkatiku xam ne yow rek yaa yaa fa àgg te li nga làmboo ci ay jikko yu rafet kenn mënu koo làmboo labista siyaabal majdi wal fadila wal ula wa fiika min al axlaaqi ma ajazal kulla moo tax bis bi su ñëwee ñu war koy fàttaliku euh, te di ko dëppale ak sunna mawliduhu muazamu mubaarakun muxtaramu taadimuhu yanxatimu ala dawi taqaddumi taadimuhu bissunnati yaquuduna liljannati bihi izdiyaadu lminnati li muxlisin muazimi te bu ñu demee ca alquran dañuy gis ne suñ borom day tagg ñi nga xam ne dañoo fonk yonent bi dañu koy màggal dañoo topp ci ay tànkam fa alladina aamanu bihi wa azzaruuhu wa nasaruuhu wattabau nuur alladi unzila maahu ulaika humul muflixuun moo tax bis bi su ñëwee dañ ci sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo wàcce jaamam bi yónni ko ci nun te suñ koy sant duñ ca boole dara lu naqari yàlla bis la boo xam ne su ñëwee nit ñi dañuy daje di di topp yàlla di wane seen bëgg gi ñu bëgg siduna muhammad alayhi salaatu wasalaam di waxtaane ay jaar-jaaramam ay jaar-jaaram di leeral ay meloom ak ay jikkoom eh, kon bis bi su ñëwee liñ ciy def lépp jaamu yàlla la bis bi su ñëwee dañ ci leel miskiin yi di ci joxe ñam wa yut'imuuna taama wa yatiman xam ngeen ni bi mu ñëwee moom yonent bi ca madina alayhi salaatu wasalaam daf fekk yahud yi di woor tam xarit bisub ashura mu laaj ne lii lu ko waral ñu ne ko mooy bis bi nga xam ne ci la yàlla musale Muusa ak banu Israil ci na labal Firawna mu ne leen nahnu awlaa bi Muusa nun ñoo gën a yey ci Muusa woor ko ci nun la gën a jekk daal koy santaane loolu lañ cay jële mooy am na bis yoo xam ne soo ci amee xéewal euh, goo doon séenu da war a sant yàlla wala soo amee ay lor ak etiis ak naqar yu nekkoon ci sa kaw mu teggi ko ca bés ba danga caa war a sant yàlla bu dee xéewal goo doon séentu la in aataytanaa saalihan lanakunanna mina shaakiriin bu dee tiis yoo nekkoon la in anjaytanaa yi haadihi lanakunanna mina shaakiriin su ko defee da nga war a sant yàlla nag ci xeete sant ya nga xam ne yàlla moo ko santaane nekkee sujjóot da nga gis koo xam ne dañuy fab doomam wala soxnaam dugal ca bolog ba di ko opeere mu tiit lool jàq lool waaye bu ñu génnee ne ko incha macha allah lépp jaar na yoon soo ko neexee mu ne nërëm sujjóot ndax sant yàlla wala ngay sàkkul sàkku mbir nekkee nga doon def euh, examen wala dara yàlla def nga jàll nga ne groupe ne nërëm ndax sant yàlla kon sujjóot dañ koy sant yàlla koor dañ koy sant yàlla sàkk sarax dañ koy sant yàlla jàng alquran dañ koy sant yàlla jàng xasiir dañ koy sant yàlla joxe ñam dañ koy sant yàlla ak yeneen xeeti sant yàlla moo tax mos nañu laaj alayhi salaatu wasalaam ne ko dañoo gis ngay woor bi suuf altine lu ko waral mu ne mu ne zalika yawmun fii fiihi wa fiihi unzila ya mu ne bis boobu de ñaar da cee daje ci bis boobu laa gane àdduna tey ci bis boobu la alquran jëkk wàcc ci man kon gis nga day woor bis bi ngir di ko sant yàlla ndax ci la feeñ te bu feeñutoon yàlla du ko yónni wolof nee na bala nga ne naam ne fa kon ci bis bi la feeñ waaye ci bis bi la ko yàlla yónni muy sant yàlla nag ca loola kon nag laqad manna allahu ala almuminin is baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalaalin mubin kon dafa mel ni eh, waxtu waa ngi dëgmal xanaa dañuy tënk xutba bi nga xam ne moom la imaam bi fa yéene jàng te mooy bi mu santee yàlla julli ci ku tedd ga alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne yàlla de mooy ki nga xam ne dara ump ko la xewoon ak li xew ak la xewagut lépp yàlla xam na ko kon nag yàlla moomu nañu xam ne moo euh, sàkk àjjana sàkk safara ñu jëm àjjana xam na leen ñu jëm safara xam na leen mu fab ci leeram nag sàkk ci nag sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam fab ci leerug si naa Muhammad nag sàkk ci nag jaamam ñii moo tax yonent bi sallallahu alayhi daana wax ne loolu bokk na ci samay karaama mooy ma jëkk waaye maa mujj daana wax ne yàlla dafa sànq dafa ma sàkk boole ma ci bani Hashim banu Hashim bokk ci Quraysh Quraysh bokk ci Kinaana Kinaana bokk ci waa kër Ismaïl mu ne fa ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaar man tànneef laa bàyyi ko ci ay tànneef ñoom tam ñu bàyyi ko ci tànneef loolu mooy tënk xutba bu njëkk bi bu mujj bi bi mu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne dëgg feeñ na ku ko gis gis nga ko ku ay ku ko gisul gisoo ko kon nag nee na bis bi ci la dëgg feeñ ci la dëgg feeñ ndax mooy bis bi nga xam ne ci la yàlla fenkal jantub ngëm muy gane ak àdduna sidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ci bis bii la feeñ ci bis bii euh, ba mu feeñee karaama bu ne xew na ca waaw xam ngeen bu ngeen demee ca jësubul xulub sëñ bi ma ngi cay lim karaama yi nga xam ne xew na ca feeñu sidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam te itam euh, bis la boo xam ne bi mu feeñee euh, bi mu ñëwee indaale na ci ay jikko yu rafet ak ay melokaan yoo xam ne moom rek moo ko mel yàlla euh, di ko sàmmal boppam ba mu am ñeent fukki at ba mu ko amee nag yàlla yónni ko ci jaam ñi mu mu ñëw xettali jaam ñi moo tax mu doon koo xam ne suñ ko dee fàttaliku di waxtaane ay jaar-jaaram ak jikkoom di ko fanaane waxtaane ndaw ñi di ci taataan di ci roy suñ ko tàmmee dootuñu ko bàyyi ndax wolof nee na tàmm laago la kon yàlla na nu yàlla fayal sirna muhammad alayhi salaatu salaam fayal nu ki nga xam ne mooy liggéeykatam bi yàlla sàmmal suñu kilifa gii fi nekk nag yàggal nu ci ginnaawam te lépp lu mu sumb yàlla na ko àggale wasalaamu aleykum wa rahmatullahi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 الحمد لله الذي أنعم علينا بإظهار سيد البشر وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام فاقت أنواره النجم والقمر وعكفها على منزل آمنة الطير وهلل وكبر وانشق إيوان كسرى ومال وانكسر وسبحان من أرسله كافة للناس وبشر وأنذر أحمده حمد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكرها ينشر اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الناس سبق في علم الله كما ورد في الخبر ما كان وما يكون وما غاب وما حضر فسبحان من اطلع عليه على على خلقه فعلم طاعة الطائع وكفر وكفر من كفر قبض قبضة من خلقه وها وقال هذه إلى الجنة ولا أبالي وهذه إلى سقر وقبض قبضة من نوره وقال له وقال كوني محمدا سيد البشر فكان بين يديه كالمصباح الأنور وخلق من نوره جميع الأنوار والكائنات وكان اسم الرسول على العرش مستر مكتوب عليه لا إله إلا الله لا أغفر لقائلها حتى معها يا محمد تركا فلما أراد الله أن يخلق آدم أبا البشر أفرغ على طينه قطرات من نور النبي المهتخر وقال لها كوني آدم فكانت كما جاء في السير وفي الحديث من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي وعنه أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريصا واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجملود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليالي سود أحمده سبحانه وتعالى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي تشرفت به الاباء والجدود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبت زرع وأورقهم أما بعد فيا أيها الناس ظهر الحق المبين والعيون عمي لا تراه ووضح الطريق المستقيم فليرجع المفتري عما افتراه ففي مثل هذا الشهر العظيم طلعت شمس الإيمان وذلت عبدة الأوثان وظهر دين الإسلام بولادة سيد المرسلين خرج من بطن أمه معتمدا وبالملائكة الكرام معتضدا ناظرا بصره ببصره ناظرا بصره الشريف إلى السماء مقطوع السرة مختونا مباركا على الأمة مامونا وظهر معه نور أضاء به قصور بصرى وأطلع الله في السماء نجوما فصيرها للشياطين رجوما ولم يزل عليه الصلاة والسلام ولوائح السعادة تلوه على شمائله وبراهين السعادة تظهر بدلائله حتى استكمل من السنين أربعين أرسله الله لكافة الخلق أجمعين وفي الحديث كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث وإنما بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على حضائه أمتي يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 akbar allahu akbar allahu akbar allah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 wujuuhu yawmaidin naa'imatun lisa'yiha raadiya fi jannatin 'aaliya laa tasma'u fiihaa laagiya fiihaa 'aynun jaariya fiihaa sururun marfuu'atun wa akwaabun mawduu'atun wa ma'aariqu masfuufatun wa zarabiyyu mabsuutatun afalaa yanzuruuna ilal ibili kayfa xuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at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 allahu akbar sami allah rabbana lakal hamd allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.